mais ma bëggoon na tontu benn association bu wax ànd sàmm jikko yi ma wax ni boo nee te defaroo jikko di wax lu Senhor, dañoo wax ni bokk gis-gis bennoo ak ak les serviteurs bu ñu leen voteel parce que dañu def benn mémorandum que xam ni signé wuñ ko waaye bi ma ko vérifié mémorandum bi mi ngi dem suñu siège le 19 passé déjà le 19 jëloon nañu position kon bu fekkee ni dañu far jullit dafay am fit nañu wax ni dañu far fii moo gën ñu làqatu ci ay association pour naxal naxal nit waaye ñi ñuy waxal sénégalais yi xam nañu lépp man nag à la place de sàmm jikko yi nañu defar jikko yi jikko yi ñooy yàq Sénégal kon nañu defal jikko yi yaakaar naa ni nit du mala bañ koy sàmm mala rek la ñuy sàmm kon bala sàmm jikko yi nañ ko defar ñooñu nag wax dëgg yàlla julli da ngay am loolu ci sa xol la nekk la koy pratiquer waaye def exprès yóbbu benn correspondance mardi fekk mardi yow prononcé wu

rëy ndaxte man dama bokk ci ñuy wax ma